njëkk muslu ci ayu ko dëkk ci dëkk bi yow sunu borom yi xam ne kenn maa ngi lay musul nga musul ci ayu képp ko dëkk ci dëkk bi ak ayu wépp waajur ak jépp doom xam nga lu kenn génnu ci koo gis benn muy waajur wala muy doom rek wala muy ñaar yëpp sax tudd itam lenn ci ndax booba bi muy sañc Tuuba ab àll boo xam ne ay ndeg ment rek ñoo fi dëkk tax nag mu muslu ci xeeti ndégment yépp aqattul asada wal aswada wal xayata wal aqraba wa saariqa wa taariqa wal aaqida wal naafita wal aaina wa saahira wal insa wal jaanna anna wa an jamil muslimin bi alfi laa hawla wala quwwata illa illa billahi al ali al azim xane musul na ci ayu gaynde ayu ñàngoor ayu jaan ayu jiit ayu sàcc ayu kuy dox guddi kuy rañaan ayu kuy fas ay fas di ca tafle ayu borom bët bu ay ayu ab njabar ayu nit ak ayu jinne mooy yu sundoon yàlla nag ci musal musal ci mboolem jullit yépp ci junni bi junnib laa xawla wala quwwata illaa billaahi aliyil ju nu junne xawaqa la nga xam ne boo xoolee ñaan googu day gis na dara génn ca waaye ci biir xasida ga nag da koo gën a man a ñaan yi ñëwaat na ca ak yenn ñaan yoo xam ne yépp xeeti musulu la wax ne suma ma yàlla def kiiraay suñ diggante yépp lor te fegal nu yépp ay muy ak dee mbaa lu ko niru wajal xijaaban baynana wa bayna kulli adan wal takfi an nal xayna ci yërmande jeeg toroxlu gi ndax nit yàlla yi dañ daan toroxlu ñaan yax dafa ñaan yo suñu borom nag nu musal ci ayu mboolem bindeef yi waaye mboolem bindeef yi yàlla na nga leen musal ci sama waay ku ne xëy amut ay moom lor sama lor yàlla na yàlla musal ci lor yi bindeef yépp te musal bindeef yi ci sama lor moom saana fin bi la darri amul lor waaye day toroxlu wal tak fi ne ada jamil alamin wal tak fihim adaya ya rabbi amin ñaan sun borom itam mu musal ko ci ayu jamono ji ndax jamono ji nag ak ay wàcc ay wàccee xew jamono ji ak jeneen jamono ji dun moo xam je ko la moo xam jay ñëw la xam ne jee ko jiit sax weesu nga ko waaye jamono ji ak ji jay ñëw ci kanam te musal itam ci jépp fitna wa najjinaa min charri hada alzamani wa charri gayrihi wa kulli fitani ñaan sunu doon rek yàlla nag nu musa yàlla nag nu fegal ayu nasaraan yi ak yahud yi te fegal nu ayu iblis ak képp kuy borom gu weddi ku ne xam na ne jamono yim fi nekk jamonoy colonial la français yi yilifoon Sénégal te doon ñoo xam ne seen yitt yépp mooy suufeel muy suufeel lislaam ak daaneel ko ak noggatu nit ñu ñuul ñi di fitnaal di leen lor baax muy ñaan suñ borom mucc ci mboolem seenu ay yahud ak nasaraan waltaqina sharra nasara wal yahud wa sharra iblisa wa kulli di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 رسول nga gisoon ak ñaan waxtu nekk day matale du bàyyi dara dafa mën a ñaan te xam aw ñaaniin su ñaanee bàyyi dara du fa des lu bu dee lu ñuy muslu du des lu ñuy muslu dootu fa des su lu ñuy ñaan lu ñuy xëcc lu ñuy xëcc dootu fa des mooy ñaan sun boon yàlla na musal ci ayu jinne ayu masiixu dajjaal ayu nit ku ñuul ayu nit ku weex moo xam ca ca penku la dëkk wala ca sow ak ayu lépp lu nekk ci kaw suuf si sépp ak asamaan moo xam lu nëbb la moo xam lu feeñ la wal jinni wad dajaali wa suudaani wa suudaani fi charq wal maghribi wal bidaani wa charra fi ardi wa sama turran wa sama min zahirin wa batinin iktatama ñaan sun boo ne ko yàlla nag musul ci mbas ak bépp natt bàyyi ko asamaan jëm ci bindéef yi ak lépp luy wëndeelu ci ci ci suuf si ak seen diggante asamaan diggante asamaan suuf kon seen diggante wa kun mu'itana min alwabai wa kulli nazilin min alsamai wa kulli ma yaduur fi l ardi wa ma baynahuma yakun rabba sama duggaan nag ci ñaan goo xam ne mooy da nga gis ne bàyyiwu ca dara ndax sunu doon yàlla na nga aar sama kaaraange te defal ma sange su sangewu mooy kiiraay lu dëgër loo xam ne dara du ko mën a bët dara du ko mën a du ko mën a jéggi sange soo xam ne dafay nekk sange su sangewu sange mooy sange su dëgër ci lan nga may ci nga lama ma ar mooy mooy mooy ayu lépp li borom sell la mooy rab yi nga xam ne dañuy jëfandikoo nit ak ayu lépp loo xam ne dafay am ay dafay am ngeexoo ñi xam ne ci ci ci ci ci ci tànk lañuy ñuy fàdde mën a mën a wex lu mel ni tene ak yu deme ni ñoom caayli xoob ak yu demee ni ñoom te fegal ma itam ayu képp koy dox ak ndëggu ayu képp koy war te yor ngànnaay ayu képp kuy ay lépp luy naaw yori laaf tey képp ku toog tey wax loolu nag ci jamono ji ñay toog ci seen gannaaw ordinateur di xaseeka saagaaka wax ñaaw di ko jëme ci ñoo xam ne duñ seen moroom eh, ñi leen gën fuuf ci fan yëpp <coughs> day tàbbi ci loola ak ayu ku tëdd ak ayu taxaw ñett ñi rek mën am ku toog mbaa ku tëdd mbaa ku taxaw nee na yàlla musal ci ayu ñoo ñëpp ak ayu képp kuy ëf ci ay pas-pas mooy an nafaasaati fi la uqad ak ayu njabar ak képp kuy borom weddi faxmi ximaaya li yakun xisnun xasin an kulli di naabin wa gufrin kulla xiin wal takfi ni yaatal baqaay wal xidam adal si macha ilaya bil qadam wa charra man yarkabu daa silaaxi wa charra ma yatiru daa janaaxi wa charra ma yajlisu bil kalaami wa charra sidatin wa di qiyaami wa charra ma yanfusu fil unquudi wa wa di juxuudi yemu ca ne maa ngi maa maa maa ngi ci sa barke lay tënk ci sa màgg lay tënk yow sama borom gaynde ak jaan ak jiit ak ñàngur ak kuy ëf ci pas-pas ya di ko fas akob sàcc ak borom bët bu aay njabar kuy dox guddi nit jinne nga musal ma ci maag mboolem jullit yépp bi ka àqattu yaa ilaahil asada wa xayyatan wa aqraban wa aswada wa aqidan wa naafitan wa saariqa wa ainan wa saahiran wa tariqa walisa wal jinna maan anni waan jami jami xam fi maalan mooy bu jul xam su bu ñaan da ca boole jullit jami'a man xat aslamo mooy mboolem ku ku ku jullit ne ko yàlla nag musal ci ayu ku dëkk ci dëkk bi ak ayu yépp waajur ak ayu képp kuy doom te fegal ma ayu gémmiñ ayu bët ak ayu képp ku jël aw ay jëmi ko ci man kuma ma dëgmal di indaale waay te musal ma ci tooñu jépp aju tooñ musal ma ci ayu ko réer ayu borom xam-xam ayu ko noppi ayu koy wax ayu ko weddi yàlla ayu koy dox guddi ayu ko ko ko bon ayu ko baax nga xam ne ko baax saxle leer dana am ay ak ayu képp kuy not ak képp kuy songe ayu lépp luy naaw ak ayu lépp luy dox ayu képp ku géem ku kenn xamut ak ayu ko siiw ba ñëpp xam ko ayu ko iñaan ayu koy ñaawal ayu ku rëy ayu kuy tooñ kon nga xam ne kon boo xoolee li liñ ci joxate la waaye liñ ci indi ci lee xeeti muslu lu dee si muslu nga xam ne bàyyiwul dara dara dara dara ci lu dee si muslu kon loolu ñaan googu rek doy na sëkk kon kaaraange kon li suñ mën taxaa wax ne kon xasida gi kon kiiraay la boo xam ne maanaam sangi la soxla da ngay da sa sangi sanga sangi bal ñi la wër maanaam tasa la joo xam dalay aar yow mi ko jàng aaraale ña la wër sa njaboot yi ñëpp ko ci ne mu tabbi ca biir kon na ci murid yëpp farlu ni mu ko diglee saa boo jullee suba bala nga def dara walla ngay xëy di dem sa place na nga jàng ma loolu fas yéene guddul nga jàng ko nañ ko war a jàng loo ca rek nga doog ko ca rek lu ama am solo la ci doon jëm ton tata nekk itam aar kaaraange ba mag ñi daa ko tuddee làkkab Tuuba bu dee nag xutba bi imaam war a jàng tey tàmbali ci sant yàlla yàlla mi nga xam ne moo defal ngëneel ko ko soob wala moo lu ko soob ci xeeti weer yi ak bis yi te xamal nu itam ay xam-xam yi ngëneel ak yu weer yooyu làmbo tey ju léegi sëlmal ci ki nga xam ne mooy suñ sang si sallallahu mi nga xam ne ak saxaabaam yi nga xam ne xameef na leen ci rafetal ak jokk salaatu salaam goo xam ne da dañ dañ jokkaloo di wéy li fekk guddi yu baax yi ñi jokkaloo di wéy man gannaaw loolu leen yéen nit ñi yàlla subhaanahu wa taala sëmbatal na ci yéen ay xéewalam yu di xéewal aku ñaawante waaye itam wottee yenn waxtu yi ñaawteef yi mu di ko wottee di ko soppi jëf yu rafet ba noppi ful ko nag ak fulandi jagleel lenn ci weer yi ay mayi ngëneel yu màgg yu kawe ngir jullit bi ci nekk tey tey jëf mën a dolli ay jëfam ci lu jëm ci faratay ak naafila yi mu ne bokk na ca bokk na ca jamono yooya nag seen weer wii nga xam ne darajaam ak yoolan lu màgg la fa yàlla subhanahu wa taala weeru rajab sun bon ci ubbi bunti yërmande yi bàkkaar ci biir weer itam doonte rey na ci ngëneelu sun bon mën naa nekk lu ñu sippi waaye jëf ci itam jëf ju baax nag donte néew na lu ñuy yëkkati la ca kaw a kaw ci yërmande sunu borom subhanahu wa taala waaye njëggal itam ci biir weer wi lu ñu tàllal la lu ñu may la ñi nga xam ne dañoo gàttañ lu ci seeni wërteef waaye ngërëm it nag ngërëmal yàlla luñ cay dog la ci ñi nga xam ne dañuy sàkkoo jéggalu yàlla ci biir weer wi di weeru rajab yonent bi sallallahu wax na ne man istaxfarallah wa saalahu tawbata fi shahri rajabin sabina marra bil ashi wa sabina marra bil ghadaat in maata maa bayna bayna rajabin wa bayna rajabin a mustaqbil maata shahidan mardiyan anhu laa tamassuhu naar leen yoon saa son dafa wax ne képp koo xam ne mi ngi jéggalu yàlla ak di ko tuubal di ko sàkku njéggal ci juróom-ñaar fukki yoon ci suba gi ak ngoon gi ci weer rajab astaghfirullah wa atubu ilayhi lu gàtt la astaghfirullah wa atubu ilayhi nga wax ko juróom-ñaar fukki yoon ci suba gu nekk ak ngoon gu nekk ci weer rajab diggante rajab gi nga ko defee ak rajab ga cay toppaat boo faatu ci diggante bi shahid ngay doon ku yàlla gërëm ngay doon ko xam ne sawara du ko laal mukk lu gàttal te kon te bari njariñ yéen saa su ma ko wax mu ne yàlla na sunu boom boole te boole leen ci ñi nga xam ne dañuy lebal yàlla lebal gu rafet mu ne na ngeen toroxlu ndax yàlla kat ànd naag ñi ko ragal waaye ànd naag ñi nga xam ne itam ñoo rafetal inna laa ma alladina taqaw walladina hum muhsinun su dee xutba ñaar yi dafa sant yàlla mi nga xam ne moo tànnal ay bindeefam yonente bu tedd tuddee ko Muhammad méngale ko xéewale ko liwaa ul hamdi muy parasol ba nga koy jox ëllëg bis penc ca tàngoor wa mu nekk ma maqaama mu tedd sallallahu alayhi wa sallam euh, maa ngi julli ci mag di julli ci gaay mi nga xam ne ñooñoom ñi nga xam ne amee nañ tedd nga ci jage gi ñu ko jage ci bokk ak saxaabaam yi nga xam ne texe nañu ci topp giñ ko topp ak cofeel giñ ko sopp gannaaw la nag yéen jaam yàlla yi na ragal yàlla te nangoo waxi seen bu yonent te jublu nag e, xar xar kanamum nangu ci li nga xam ne moom la leen digal ci ay njëkk lu leen di jural ay njëkk te ngeen góor góorgóorlu te jëf te xam ne yàlla dana jëf ku jëf yàlla dana gis say jëf te ngeen rafetal ni yàlla rafetal jëme ci yéen te ngeen xam ne kat bis yi day gaaw nañu lool ci ni muy doxe te xewut te dee gaaw na lool ci nu muy dabe te nun nag noo ngi ci ay mébét rek yoo xam ne amulu amuluñ ko ab ab gàpp te digg yi day am na ci digg yu jege lool mu ne kon na ngeen gaawtu njëkkante yàlla ne suñu doo defal tawfiq bala leen a dig yooyu di bet bala seen bala leen seeni dig di bet na ngeen farlu góorgóorlu ci soxla woo jëf yu baax yi bari lu ngeen di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa na su ma defal tawféex defal defal defal leen tawféex ni mu ko defalee gaa yu baax ya fi jiitu woon ci ay jaamam yàlla noonu yàlla def te def leen ñu bokk ñi xam ne dañuy bàyyi seenu tànn ak seen nameel waaye ko ci tànnuk yàlla akuk nameelam te tey dog seen seen dund lépp ñu di ko jeexal ci topp yàlla mu ne ci lool nag ci ngeen mën a watte meññiitum mbaaxu yàlla ak ngërëmam da ngeen seetantal nag wax ji suma waxoon ci alxuraan ne képp ko jëf lu baax muy góor muy jigéen te gëm yàlla lal ko daañ ko jox dund gu neex fii ci àdduna te bu ëllëgee ñu fay ko la lu gën a def mu doon jëf yal na sunu borom jégal te jégaleen yal na sunu borom boole dimbale boole defal tawfiq xiir nu ci ak njub te saxal nu ci def nu dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa nag sunu taalibe Seex Ahmadu Muntaxaa yàgg fi lool te wér lool sunu borom ko mboolem ay yéenam barke Seexul Xadiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.